assalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi wa noo ngi sant borom bi taala wa di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal sunuy bàkkaar ñoo ngi ñaan borom bi mu defal ñu nasrok yusrok tawfiq waaye defal suñu yonent sallallahu alayhi moom ak i saxaabaam defal leen jàmm ju baree bari xaare leen àjjana daarul birr tv mi ngi ñëw ak daarul birr wal comme ni ngeen ko xamee noo ngi fas yéene di ñëw ak yéen mbokk jullit ñi ñi ci biir réew mi ak ñi ci jaspora bi maanaam ci bitim réew sunuy mbokki pas-pas sunuy mbokki jullit di leen wax ni assalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi boo xamante ni doxin bi mooy changé waaye doon na am mu tuddoon néegu sëy ñu koy wooye albaytu zawjiya walla alxayaat azawjiya mooy néegu sëy ak dundin ci biir sëy loolu nag dana làmboo kenn ku nekk ci concernant yi muy xam la ko war ci moroomam ci yomb yomb ak ci jafe-jafe yan droit la am lan mooy devoir am moo xam ci góor gi moo xam ci jigéen ji mën naa sëmbartal ba ñëw ci sax doom yi première bind biñ ci am ànd ak yéen ci studio bi ak liggéey bu bees bi niñ ko bëgg a doxalaatee ad darsul awal tey dina nekk istimaamu islaam bi takwinil usra mooy première bindu tay bi nu ngi sàkku ci mbokk yépp nag rawatina jigéen ñi ak góor ñi ñu koy bàyyi xel ndax dafay làmboowaale ay conseillers dafay làmboowaale lu bare bare bare bare mbokk yi islam itte bu mu ittewoo ci organiser une famille en islam xam ngeen ni islaam dafa jox famille cër wu mag a mag bu nu waxee famille nag dafay tënku ci góor bi nga xam ni mooy boroom kër mooy jëkkër mooy baay ak jigéen ji nga xam ni mooy jom suudu ci pulaar mooy yaay ak njaboot gi islaam dafa bëgg ñu organiser wu ñoom ñaar ngir seen ànd nekk àndandoo bu dëgër ngir ñu mën a pré préparation boo xamante ni kër gi dana dëgër dana baax dana làmboo ragal yàlla kon loolu nga xamante ni moom la ñuy organiser une famille dafa tënku ci ay charte ci ñetti mbir bi ci jiitu moom mooy al ixtiyaaru saxiix li kullin min azawjayn maanaam jëkkër ji ak jabar ji kenn ku nekk dafa war a tànn tànn bu jaar yoon sa moroom maanaam góor gi buy tànn soxna dafa am nu mu ko war a tànnee jigéen ji buy tànn jëkkër da ko war a tànn kon kenn ku nekk ci ñoom ñaar islaam dala sas nga tànn sa morom sa compagnon nga bëgg ko nopp ko waaye critères yi islaam jàngale dafa bëgg nga sàmm ko ku góor ki sàmm ko ku jigéen ki sàmm ko lu ko moy bu erreur amee ci kenn ci ñoom ñaar rekk mooy fondation kër gi dana daar maanaam góor gi bu jiitalee bakkan ci tànn wala jigéen di jiital bakkan ci tànn lalee ko ragal yàlla sëy boobu tôt ci ay problème lay dëkk ñaareel bi mooy al muasharatu bil maaruf ànd ci àndin bu rafet ci diggante góor gi ak jigéen gi maanaam bayna kullin minha ku nekk day fas yéene def njekk jëm ci moroomam ndax kat wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin borom bi nee na rafetal leen jekkal leen ndax yàlla dafa bëgg ñuy rafetal di def njekk borom bi ne wa aachiruhunna bil maaruf yéen góor ñi yore leen seeni jabar ci àndaale bu ànd ak njekk ci respe ci ragal yàlla ci notoriété waaye ci xam kenn ku nekk ci ñoom ñaar ay defa moroomam su jigéen ji xamee àqam taxaw ci góor gi xam àqam taxaw ci ku nekk góor góorlu ba say àq nga jéem koo sàmm te am yoo bàyyi ànd bi dana jaar yoon ñetteel bi mooy almawaddatu war rahma kër gi ñu war a tabax dafa war a lalu ci mbëggeel ak yërmande maanaam mbëggeel na am góor gi na bëgg ku jigéen ki waaye ku jigéen ki it na bëgg ku góor ki maanaam muy nobel maanaam kenn ku nekk li la war ci sa morom nobel mbëggeel ci côté jigéen ji jonge ci côté góor gi mokk su ko defee loolu mooy almawaddatu war rahma kenn ku nekk da koy ëmbal moroomam góor gi day nopp jigéen ji ëmbal ko yërmande jigéen ji nopp góor gi ëmbal ko yërmande su ko defee loolu moom mooy tax sëy bi nekk association boo xamante ni bu dëgër la lool lool moo tax wàllu sëy borom bi daf ñoo wax ni dafa bokk ci keemaan yi nga xam ni tudd na ko ci alquran ne wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayat borom bi nee na taala wa tabaarak bokk na ci ay kéemtaanam mu defal leen ay soxna yéen góor ñi utal leen ay jëkkër yéen jigéen ñi pour ngeen dal maanaam góor gi bu liggéey ba ñëw ñëw fekk soxna su koy dalal jigéen ji su demee marché ba ñëw wala mu xaar jëkkëram fekk borom këram di ko dalal kenn ku nekk da ngay dalal sa moroom soulager ko wan ko nobel wan ko mbëggeel wan ko cofeel wan ko ragal yàlla kon mbokk yi jonge ak nobel ci islaam lanu ko xamee keneen ku ko jël ci nga koy jëlee kon borom bi dafa jël ñaar yooyu séddale leen ko wa jaala baynakum mawaddatan warax ma yàlla nee na yow ku góor gi yàkku jigéen ki dama def ci seen diggante cofeel ak yërmënde nobeel ak yërmande jonge ak yërmande ci góor gi ak ci jigéen ji acte yi wane mbëggeel ak nobeel jigéen ji da koy joue waaye acte yi wane mbëggeel ak nobeel góor gi da koy jouer góor gi munta nekk benn objet rek taxaw ñu naan ko dama laa bëgg dama laa nopp moom mu ne sëmm foog ni mbir mii lu ñu war a taxaw la jigéen ji rek war a def yooyu kon kenn ku nekk ci ñoom ñaar dafa war a dox war a dox jëm ci mawadda góor gi na dox jëm ci jigéen ji dox jëm ci malheureusement bu ñu seetloo dañuy fekk ne yeneen société yi dul jullit ñoom ñoo gën a sàmmoo loolu da ngay fekk ci biir sëy ñi dul jullit jigéen ji léeg-léeg di wax borom këram nopp naa la bëgg naa la góor gi di ko wax léeg-léeg góor gi day indi fleur indi li muy jox jabaram di ko wan toujours di ko présenter mbëggeelam jigéen ji di yëg boppam góor gi di yëg boppam kon su boobaa loolu borom bi nee na da koo def ci biir sëy wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma kon yàlla nee na dafa dugal seen biir yërmande ak cofeel borom bi ba tey wax ñu ne ñu te foofu laay jeexalee hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna seen sëy yéen ñaar bu yeboo rek nga jàpp ne yow jigéen ji yaay yérey góor gi yow góor gi yaay yérey ku jigéen gi maanaam su ma ko mënoon a misaal damay wax ni yow góor gi tey baas bi jigéen ji sol yaa koy sol robb bi muy sol yaa koy sol li muy sol ci yére ndeke yére yi muy sol du yéreem say yére lay sol waaye yow jigéen ji it xaftaan bi góor gi sol la muy sol yaa koy sol kon kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa yére moroom ngay sox mooy hunna libaasun lakum jigéen ñi ay yére lañu pour góor ñi mooy sutura lañ kon jigéen ji bu bëggee kër gi neex kër gi barkeel day am sutura góor gi bu bëggee kër gi neex kër gi barkeel day am sutura loolu mooy suñu bind bu njëkk mbokk yi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain ki doon jotaay ak yéen mooy seen mbokk Umar Ahmad Sall salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.